déclaration bi ñuy bugg a def nag lenn dong la tey dañu dajale assemblée général bu AMS AMS tuddu askan wi moo ñu soxal te li ci doy waar mooy ñun bi ñuy taxawal AMS en deux mille deux mille dix la woon kon booba yeewi askan wi amagul woon moo tax bi yeewi askan wi ñëwee ak askan wi moo ñu soxal defe naa seen ànd warul jafe parce que ñi ngi daje ñoom ñëpp ci askan wi kii ni man askan wi moo ma ñor moo ma soxal kii ni man dama bëgg a yeewi askan wi moo tax ñu lëkkaloo ak la coalition yeewi askan wi bi ci des mooy ñëpp xam nañ ni élection locale yi passé man maa doon tête de liste proportionnelle du département de Louga avec la coalition Yewwi Askan Wi fi may wax ak yéen je suis conseiller départemental avec quatorze conseillers de la coalition Yewwi Askan Wi moo tax bu réew mi tolloo fu mu tollu ngeen xam ni Sénégal dafa tagga tembe képp kuy jullit képp kuy beneen diine boo mën a gëm képp ku yéene jàmm Sénégal képp ku yéene jàmm askan wi war ngaa ñaan nguur gi fi nekk mu abale parce que nguur gi man de bokk naa ci ñi ko faloon waaye ak ma ak a makaa ñi ko faloon bokk naa ci def ci sama doole def ci sama alal def ci sama temps mais tey mun naa wax ne rëccu naa ko lool parce que nag nguur bu demee bañ naan la del dóore del tëj del rey kon Sénégal kenn xamul fu mu jëm moo tax ñu bëgg ngeen xam ni bis bu bennoo bokk yaakaar nekkee majorité Sénégal dugg na ci fitna boo xam ne xamuñu fu ñuy yóbbu réew mi dafa tagga témbe réew mi dafa tagga témbe ca dañu ne ko artuwul dinga nga àtte Macky Sall fi mu ñu jëme baaxul ñun dañoo bokk ci ñi ko faloon waaye dañ koo rëccu ca de rëccuwuñ ko tey de depuis 2017 lañ ko rëccu woon ndax doxalin wi bañ ko xoolee gis ni fi mu jëme réew mi baaxul ca leer na boo demee bañ naan la deel rey del tëj del jàpp del tooñ del del saaga ku saaga sax boo àndee moom mucc nga moom ku ko saaga ndey sax boo àndee ak moom boo boo saagaa Sonko bu suba saa mu woola teg la ci wetam xam nga ne kii du ngor du jullit parce que am na jëf yoo xam ne am na jukko yoo xam ne ku ko làmboo doo gor doo jullit moo tax ma bëgg ñu jàppale jullit ak gor yi nga xam ne mooy Ousmane Sonko mooy xalifa sàll mooy sëñ Moustapha Sy Moustarchidine ah jaajëf ñooñu c'est des hommes de valeur mooy ak ay hommes de valeur ñoom Déthié Fall ay hommes de valeur ak des femmes de valeur toogal leen fi Adja lii ka jaw mi ngi nii sama wet yépp xàmmee bulletin bi amul benn photo bu ci nekk mooy vert bi bu bis ñu ni vive Yewwi Askan Wi vive wàllu ñu jël réew mi tegaat ko ci yoon jërë ngeen jëf kontaan nañu